daal loo bëggee boo ma xoolee sama kanam gi rek xam ni damaa mer maa ngi tudd Amana gars yi di ma wooyee Amana Rasulu mhm. maa ngi lakk fii yàpp nekk Thiès si garage bi comprendre nga man lii bu ma ko xoolee sax sama yaram dama daw dafa ma fàttalil maanaam coronavirus bu fi passé woon comprendre nga mais tamit euh, adduna moom buñ ci nekkee moom wakirlu suñu borom rek moo fi nekk parce que tey boo xoolee garage bi nu mel xam ne tamit métti na quoi xam nga waaw parce que ay borom jobeen ñoo fi liggéey ku ci nekk da ngay liggéey daan sa doole yóbbu sa kër am na yenn daan yoo xam ne bu ñu koy génneewaat dañoo war a xool bu baax fu ñuy teg affaire yi xam nga waaw yow xoolal garage nu mu mel rek te dangay ngay doon jaay 5 kilos mais da ngay lakk benn kilo sax pour nga jaay ko sax problème la da nga am ay njaboot xam nga ñu yaakaar ci yow am loo xamante ne lu bëri da nga war a def waaw ñun moom ay jeunes la dañuy liggéey parce que tamit waruñoo mën a dig. nan dañuy jappalé nit ñi ba bari di tek nit ñi ay genre film ya nga xamantene ni xama da ngay bëgg dem liggéey sa doxu man comprendre nga maanaam xam nga nguur dafa neex si do lay ngay mëna yegg dema dem yegg ko boog bu la do lay falé da nga wara xamné ay doomu aadama ñoo la fal n'est-ce pas diko tek ci yoon di xalaat ñu ne ci ginaaw parce que ëllëg sabamel, ci biir ku dee ak sa bàmmeel xaalis neex na lool di lek hey man de loolu ñemee ma ko moom wax fa dëgg yàlla. Euh, d'accord euh, Amana kon yow suma la déggee mooy grève euh, transporteur yi métti na trop ci yow. non métti na parce que boo gisee métti na c'est que gis benn rek mënul def lépp mhm. maanaam foog mu am ñaar ba ñett ñii tamit lu ñuy kaas loolu logique la nit ki tamit mënoo jégg xam nga yab fi cinq clients wala yab fi quatre clients ñu dem bëgg laa morole nga nar fay nga ah, par exemple quoi nga bëgg ñu fay la ci oto bi dix nga dem ñu encaissé 5000 ñaata nga ciy dese ah frais gasoil ñëwagul leneen ak leneen ñëwagul sa gàlle bu gaz bi jeexee dañ lay woo en tant que responsable nooy def nga war a wàccaale verse yàlla boo nekk moo moo oto bi looy def ah. waaye la nga nuyoo ñu lay seetaan wax sa tur ak sa sant. waaw maa ngi lay nuyoo maa ngi nuyoo ñu ñëpp man de sama Hamidou Hamidou Amady Sow laa tudd ordinaire de réseau maatam te sama dëkk Léwe Ngenaar la tudd. Euh, gis nañ ni que seen euh, tey ji euh, li nga xam ne moo di gaar bi dafa wéet est-ce que seen njaay bi mu ngi dox comme nam daan doxee ah ñu ngi sant yàlla vraiment lii moom arrangé wuñu mais en tant que lii la ñu am dañ ciy jàpp rek mais client yi ñu ngi ñëw ndànk ndànk ndànk benn par benn mais nekkul comme l'habitude l'habitude client yi ñëwee lu bari mais ñu ngi vraiment client yi ñëw benn par benn mais kaw mi arrangé wuñu vraiment bu l'état mënoon arrangé régler situation yi moo ñu gënal parce que lii moom vraiment gis nga garage bi kenn newu fii kenn naw fii ñu ngi fii depuis 4 heures ba léegi man 4 heures laa fi dugg ci garage bi 4 heures du matin ba léegi mais saa yi daan jaay au ay 100000 75 000 mais tey fi ma nekk nii depuis ma ba léegi jaayoo ma saa 10 000 francs yàpp baa ngi pousse baa ngi ni fees dell mais jaayoo ma ko d'abord parce que client ñëwul kon su la déggee situation métti na trop ci yéen métti na métti na trop carrément difficile vraiment métti na fu nekk aussi dañuy daw pour quotidien pour li ñu xam lu ñu dundal suñuy waa waa kër loolu moo tax duñ ñu toog mais vraiment situation bi moom métti na bu l'état mënoon daal jàppalee doomu réew mi ñu mën a liggéey ñu mën a liggéey loolu moo ci baax parce que man bi may wax ak yow def naa ci Congo Brazzaville 10 ans fukki at ma ñëw xam nga bu ma ñëw delluwaatee réew mi liggéey moo tax bu foofu ba bu fii baaxoon du ma fa dem mais dem naa foofu gis mais xam naa ni foofu ak fépp benn la mais ñu liggéey leen man ci liggéey bi ci liggéey bi lañ nekk. mais l' état da ci war a jàpp nag xool situation bi même bu mënul régler problème réew mi yëpp na la régler problème réew mi tuuti parce que l' état bu euh, l' état bu amee population ya tax bu population amul woon l' état du am kon nañ ci jàppale ci population yi ñoo xam ci réew mi réew mi la ñu bokk am nañu nootor lépp depuis bu bi ñu bi ñu amee dix huit ans ba léegi cinq élections ñu participé ko voilà kono bu ñu amee baat ci réew mi nag na l' état bi xool gëstu population askan bi xool seen situation yi lu muy réglé mais vraiment fii moom lii moom vraiment kaw la kaw la carrément kenn liggéeyul lii moom nu ñu fexe ba problème bi mënta réglé wu rek nañu fexe ba jàpp ci bi réglé wu maa ngi leen sant di leen gërëm. fii man maa ngi tudd Chérif Sow di jaay yàpp fii si garage Kees. d'accord Chérif naka ngeen di dundee euh, situation bi ni mel ak grève beeg oto yi nga xam ne gisatu leen nit ñi. waaw kaw na métti nag ndax euh, xam nga foo xëy di di fa wut dépasse boo xëyee benn jour mu taxaw day métti mhm. waaw. E, dembu ba legi fi garage bi def wena trop te ñepp dañu ñew fi du ñun kessé jaay kat yàpp yi nañu jaay même xaal sax kele mantin tout ça lepp lañu jaay fi ñu bari ñoo dundu ci garage bi si e, limal moo ko mënu lim la ko mën waxee daal mu gàtt grève bi war nak gars war nañ ko xol mu téla jeex ndax day day soxal liggéey bi bu baax baax di gars yi Sénégal yi xam nga bari wu ñu doole ku nekk bo xëyul do mënu reer wala bo réré do mënu ndik boo xëyul daal maanaam doo doo am dara waaw si seen xëy daal la ñu mën a dund moo tax daal gars yi war nañ si taxaw teel mu arrêté ñu safar. kon su ma la déggee nii démb ba léegi daal jaayoo. démb ba léegi jaayoo tey sax xëy naa ni mais ba léegi kàngu maa ngi taxaw mënul jeex ba léegi te de heure bi da daan fekk mu jeex xam nga njaay mu mel ni warul fanaan warul warul tax jënd waxuma la fanaan dafa war a teel a jeex te gis nga ba léegi moo ngi nii gisoon doo gis kenn gis nga gis ngeen gaaras bi amul kenn benn nit amul. waaw moo tax daal war nañ ci taxaw mu teel a jeex. d'accord lan mooy sa kàddu bu mujj. sama kàddu bu mujj rek mooy gouvernement bi nag gëstu eh, transporteurs yi li ñu li ñu xa li ñu li ñu kaas mu jàppale leen si loolu mu saafaru ndax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk benn bopp la waaw dafa war a taxaw Sénégal yi yëpp ñu gis seen bopp.